parce que nit dañ la war a naw ñu lay seetaan kilifa yi dañuy seetaan ay mag dañuy seetaan suñu famille dañuy seetaan y a des gens yoo xam bu leen invité sa plateau rek da ngay tuutal sa bopp. secondo gis nga ñii ñëw pour bëgg argent facile ci dëkk bi duñ ko jaar fenn bu dul ci média yi duñ ko jaar fenn bu dul influenceur présentateur animateur journaliste. Mm-hmm. te ci am na ci ñoo xam ne man man man déjà invitation surtout nag genre hôtel yi damoo ko ragal léegi parce que dañ lay ñëw invité nga ñoo toog boo amee lu la yàlla may da leen xool jàkk xam ne kii waxul dëgg mhm. dóorkat la mhm. mhm. yàlla nañu yàlla may sutura boo xam ne mën a xam nit ki fi mu jëm parce que lan dañ lay ci mbir boo xam ne lu salte la facilement tu as une famille sa réputation yàqu à une fraction de seconde nañuy xalaat suñu famille xaalis bi yomb na yor téléphone cher yomb na et tout ça c'est bien beau mais nañuy xalaat suñu famille surtout man je le dis parce que j'ai vu beaucoup ne nekk ci presse bi ay ay appartement def leen li def leen li ba ci yàq nit ñu ngi koy def. Mhm. appartement yaa ngi fii. Mhm. suñu moroom ñoo fa nekk. dangay wax ba sonn parce que lan ñu ngi ciy ñu ngi ciy gagné loo xam ne ne yor nañ téléphone bu cher. Mhm. dugg nañ ci réseau yu cher loolu lañ ci am alors que pendant sa temps yaa ngi def nit koo xam ne dara lu ko metti loo xam ne parce que wax nga dara ci moom lu ñaaw. wala encaissé nga xaalis boo xam ne ne xaalis jeu de hasard la dañ ko jëlee ci nit. jox la ko. vraiment nañuy xolaat suñu bopp bu baax a baax. wax dëgg yàlla euh, Abdou Aziz ñu ngi wax tamit loo xam ne li jëm ci ci connexion internet bi. ñu mhm. gis ne ARTP am lu mu découvrir ci ñi xam ne ñoom ñoo fi ne. Mhm. ñu gis ni connexion bi ak appel yi c'est trop cher ici au Sénégal yàgg nañ koo kaas. Mhm. te nekk nañ ci nekk on est on est on est à nit ñi connexion lañ gën a bëgg. Euh, Abdou Aziz gars yi ñu ñu ngi rey de ñu ngi lekk si ñu ngi euh, lekk de. Amadou balaa may ñëw si wàllu connexion bi da nga wax si jeu au de waaw bon maa ngi gis benn waaye buy def liggéey bu am solo. Ah. je pense que c'est un certain Yella. Yella ah booy rëbës la booy booy bu nekk di def liggéey bu di démasquer gars yi. macha allah naturellement donc ñu ngi koy big bu baax. bu ñëwaatee si wàllu connexion bi est-ce que xam nga ni Ahmadou yow jàppal ni cent francs boo jënd internet yow Sénégal lim si mën a bénéficier yow matul dix francs. ak fii ni ñuy construire connexion comprendre nga. dañ maanaam ñun cela veut dire quoi que ni dañuy liggéey pour nasaraan bi dañuy liggéey pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy les opérateurs pour man tey war na mën a taxaw seetlu am naa yaakaar nag avec le nouveau gouvernement. que ni mhm. les choses vont changer. bien sûr internet fii rek la seeraan internet fii rek la cher. c'est trop donc mais nañu gars yi gën a liggéey gën a yërëm sénégalais yi. waaw surtout ça nañu gën a yërëm sénégalais surtout les opérateurs je cite Orange surtout. Mhm. waaw parce que sax boo xoolee nga def comparaison. nga dem expresso wala feneen ak feneen bon. man sama orange bi répondeur laa ko def amatul mhm. crédit amatul dara vraiment orange moom man loolu leen bàyyi dafa yàgg. ah waay c' est génn seen mbir quoi. Mhm. na ministre bi jël ay responsabilités si loolu li Sénégalais di dund ci connexion ak appel yi moom surtout loo xam ne ko jënd ñu ne la boo ko consommé ñu jël ko yaakaar naa war nañu taxaw xoolaat ko bu baax Abdou Aziz Fall ñu gisaat beneen scandale yaakaar naa ni moom jamono ji jamono scandale lañ nekk. fële ci ministère de la santé dégg nañ lu ministre bi wax dégg nañu rapport yi tamit li mu génnee toll ci mille agent yoo xam ne non régulier mm-hmm. euh, jëm ci sept cent soixante quatre million yoo xam ne ne ñuy dépensé la sans justifier mm-hmm. ak fu mu toll nii euh, santé bi nu mu suuxee ici au Sénégal li nit ñi sonnee bu ñu demee ci hôpitaux yi li nit ñi di daj bu ñu demee ci hôpitaux yi tey ñu dégg rapport bi génnee lii euh, Abdou Seye yaa ngi si santé bi aussi ah bu ko fàtte. bon li ma lay wax foofu c'est aussi simple tey bon gis le secteur de la santé. a été toujours comme ça parce que surtout ministère de la santé loolu moom je pèse bien mes mots dafa bëri ay poste politique yoo xamante ni eh, bon les gens greffent des des des gens de pour au moins tey ñi nga xamante ne ñooy mooy les gens droit sax ni ñu war a jot duñ ko jot tey imaginel Euh, un professionnel de la santé bi nga xamante ne mi ngi yeewu am ay diplôme am mm-hmm. mais mënul sax am contrat alors que on nous parle de plus de mille personnes yoo xamante ne ñi ngi fayeeku te gisoo leen te ñi fa nekk di liggéey sa seen salaire ça pose problème gis nga gis nga gis nga si le ministre euh, bon si le président de la république mm-hmm. décret lay def ministère de la santé dama koy tas parce que man je pense que ni li ma li ma lu tax ma wax loolu ministère de la santé dama koy tas parce que dans le bon sens du terme sentirul le, le ministère en tant que tel vis-à-vis -vis des communautés ñi fa nekk pratiquement c'est les mêmes personnes yoo xamante ni depuis Senghor ñoom ñoo fa nekk et tout donc ministère de la santé lan la war a jëriñ effectivement askan wi tey pour man le véritable challenge c'est quoi c'est les structures communautaires de base nan lañ leen mën a dooleel mm-hmm. mais tey da gis le ministère de la santé pratiquement dans le cadre des programmes et tout il y a énormément de fonds yoo xamante ne chaque jour da nga koy dégg ministère de santé santé santé mais à la base gars yi sentiroon ko santé limite uniquement au niveau des districts ak yenn hôpitaux yi mais les structures de santé ay comme centre de santé poste de santé bon c'est des structures qui souffrent mhm. elles souffrent grave ces structures là donc à quoi ça sert le ministère de la santé dans tout ça nañu génn bureau yi climatiseurs yi toog teg la tàng yi nañ ko génn xam sa qui se passe. aujourd'hui nous on a fait le tour du Sénégal. je parle sous le contrôle de d'un de vos techniciens Aliou Camara. Hmm, fii la ñu fekk. on a fait on a fait pratiquement plus de 17 îles. Hmm. Euh, dans les Sine Saloum. Hmm. et sur les 17 îles y a benn île boo xamante ni am na euh, centre de santé wala dara. ay cases moom moo am aujourd'hui fi ñu tollu Sénégal on on devrait même plus parler de cases de santé. dëgg yàlla comprendre les mil les mille milliards là qu'on vole di ko yóbbu si yeneen structure xajoon na si sante bi en ah, Moundé Moundé mooy centre Île du Saloum mm-hmm. bi population bi ñëpp bind nañ def nañ petition lu ne wax nañ ko pour que ñu tax taxawal leen te c'est par population bi dem nañ ba am seeni moyen bopp ba joxe huit hectares commencé am suuf ak euh, mool ak moo comme on le dit brique ak yeneen xam nga mais mënuñu fexe ba tey le ministère ñëw taxaw appuyer leen à quoi ça donc aujourd'hui on nous ay mille ay mille personnes yoo xamante ne ñu ngi fayeeku c'est des milliards yoo xamante ne on n'a pas fini sénégalais yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci ministère yi nañu gërëm jaami mhm. xam ne liñ leen di fay sama dërëm la dërëmu jàmbur la keneen ak keneen ñuy contribuer di leen fay donc ki lay fay nag da nga ko war a respecter xam ni moom mooy sa boss parce que bu demee bu mënatul fay nga am problème am ay jafe-jafe jafe-jafe vraiment yaakaar naa santé bi moom mënuma ci bañ a ñàkk wax ndax dama ko vécu ici au Sénégal barki démb rek maa ngi am sama frère Abdel Abdallah jàll feebar ñu war ko perfuser seen solution saline bi dafa manqué woon. j'ai été obligé dax biir Dakar Plateau may wër pharmacie pour am ko ci loo xam ne ñu ne dafa manqué. Mhm. ici au Sénégal euh, soxla naa fi tey hépatite B bi. Mhm. vaccin bi moom doo ko gis. war mhm. nañ ci taxaw ministère de la santé man ñi fay liggéey mosuma dégg ñu ngi grève salaire. te heure booy yeew yaa ngi ci yi. très bonne question centre de santé yi. médecin yaa ngi jooy sage femme yaa ngi jooy infirmier yaa ngi jooy. nga teg ci loolu ñu ne la non machine bi dafa panne. Mhm. bu ñu toogee ñu naan machine dialyse dafa panne wala machine euh, euh, bi ñu war a defee kiw cancer bi dafa. dafa panne nekk man man heure boo ko déggee damay frustré parce que man bizarrement j'ai jamais vu une personne qui travaille. ba ministère la santé di kaas ne fay ñu leen seen salaire. non mais yow da maa dimbali ah loolu mosuma ko dégg man mii. musul am. Mhm. musul am mhm. chaque mois seen salaire mi ngi wàcc. Mhm. te ci oto yu rafet yi ñoo koy dawal nekk ci clim kilim bi séminaire yeeg forum yeeg yëpp ñoom ñooy voyagé dem. c'est pour bouffer uniquement de l'argent. Sénégal boo duggee jamono ci hôpitaux yi ticket bi na ndaw 3000 la. biñ la bindee ordonnance. déjà pour nga wër garab bi ba gis ko sax en rupture rek ngay dégg. xawma fu kii national bi toll nañu ci dimbali rupture rek loo garab boo laajte ne la rupture da ngay obligé di wër ci guddi gi pour am ko. mais Amadou côté boobu noonu surtout du point de vue de la pharmacie nationale. nationale. je pense que ñun am na yaakaar si le nouveau directeur un ami un frère mooy docteur Seydou Diallo. Ah, def liggéey je pense que ni war na si mën a liggéey bu am solo ba rupture yi ñuy wax parce que tey dama doon waxtaan ak un ami. Mhm. mu ni ma aujourd'hui da ngay toog ñu ni la sérum salé day manqué. barki démb li ma la wax ma une semaine. ñu ni la imagine toi euh, ma jógee centre de santé bu Dakar Plateau. dem pharmacie Ahmadou Bamba dem pharmacie bi nekk pompier mhm. dem pharmacie bi nekk Rue Escarfé mhm. bu jee bi hôpital militaire bi nekk wetu euh, hôtel euh, kii panache panache mhm. panache xawma euh, lañ ma digal ci laa ko di am à l'intérieur sérum salé te aujourd'hui man man maa ko dund man man man damay wax lu simple damay joxe benn proposition bu simple boo xamante ne j'en ai parlé avec un ami mi ngi may dégloo bu baax ma ne ko tey mu ne mën ma sérum salé est-ce que xam nga composition bi lan la. Mhm. maanaam ndox la ak xorom. ah bon comprendre loolu moom mooy sérum salé. mu ne ma aujourd'hui tey ñun amuñu possibilité yi pour pour def ko mais tey day proposer état du Sénégal benn mhm. mbir. Mhm. Aziz Ndiaye lan la. businessman la Aziz Ndiaye businessman la. Serigne boobu businessman la. non on cible au moins deux trois milliardaires. Mhm. ni leen jox leen marché yooyu ni leen à partir de maintenant. gérer Jérôme Salé bu mu fi manqué. i aujourd'hui man je je sais que ni bu boobaa bu ñu joxee marché yi ku mel ni Aziz Ndiaye ku mel ni keneen ak keneen ak keneen. ñu dugal leen grève dugal leen ci biir. Mhm. wala ñu jël deux trois personnes jox leen ci biir marché yooyu noonu. mais tey mënoo couvrir lépp te te pour man yooyu. waruñu sax toog ñu naan ay no médicament bi dafa manqué. ah mais am na yaakaar si docteur Seydou Diallo. peut-être dina si liggéey liggéey. vraiment ñu taxaw ci nit ñi bu taxaw ci nit ñi bu baax. parce que sénégalais vraiment sonn nañu da ngay soxla man man man man man man man pharmacie nationale vraiment. Mhm. liggéey leen. Mhm. parce que tey da ngay dañ lay bind ordonnance ci surtout le soir nga dugg ci pharmacie bi nga xam ne mu nekk ci biir hôpital bi moo doon nekk premier secours. Mhm. moo dugg pharmacie bi nekk ci hôpitaux yi fii indi ordonnance mu nekk cinq te amul deux yu manqué. tout à fait foo waxee ni la non bi amul génnal ci biti. Mhm. nga génn di ko wër vraiment santé bi dañ ci taxawaat bu baax sénégalais yi soxla soxla nañ ko. Mhm. Abdou Aziz Fall daal lii daal lañ indiwoon tey fii ci lu bees actu lay bàyyi rek nga tàggatoo. waaw waaw tàggoor boobu en tout cas sa fait plaisir à ah, ma déggal la encore une fois ñu toog pour mën a waxtaan un tout petit peu ci actualité bi mais di xam ni rek le Sénégal c'est à nous ah. mm-hmm. ku ci nekk da nga war a mën a teg loxo ku ci nekk da nga war a mën a teg loxo mais aussi di tey émission bi bon maanaam échange bi sax laay wax dama ci def mention spéciale à une association qui vient de naître muy okay. association des responsables de la presse en ligne mm-hmm. vraiment ah, mu nekk vous avez du boulot vous ne vraiment mu nekk une association très très très professionnelle mm-hmm. et euh, donc di si ziar gars yu bëri le président son bureau exécutif et cetera xam ne nag Euh, li ñu doon wax ci presse en ligne bi sous peu dina am beneen xar kanam dina am beneen changement et di wax aussi tendre la mais à toutes les autorités yi nga xamante ni am nañ possibilité pour jëm jege ji pas ñu xaar association bi ñëw vers ñoom mais mm-hmm. association bi dem euh, les autorités dem vers l'association c'est l'association des responsables de la presse en ligne et composé que des professionnels et eh, on a eu la cartographie pour am acteurs yëpp ñi nga xamante ne au moins ñi ngi liggéey ñi ngi koy teg ci yoon. donc maa ngi def dig mention spéciale à cette association la di la sant di la gërëmaa ah, di gërëm gaa yëpp. di jégaluwaat bu baax taw feex rek di bu baax. non noonu lay demee xam naa ne incha allah bi tey rek wala suba di ngeen mën a suivre aussi li nga xam ne ne mooy li ñu wax ci jeu de hasard yi ñu wax aussi ci pyramide yeeg. Mhm. dil bi ci nekk.